yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te tontu ci laaj bi ganaa loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fukkeelu njàngale mi yàlla tànn na abraham nanu bamtu nettali yi jiitu benn kañ la nit ñi teqalikoo ak yàlla bi Adama ba kare ñaar ndax yàlla moo metital ayuba déedéet waaye moo bàyyi ñu mettital ko ñett ndax yàlla dafa àtte ayuba ndax bàkkaaram déedéet seytaane moo mettital ayuba ngir ayuba moolu yàlla ñeent ndax yàlla sàkk na ay yëf yu bon déedéet li yàlla sàkk lépp baax juróom lu tax nit ñi di am metit bi mu soobee nit ñi ñu dégg dil yàlla ca la metit ñëw ci àddina seytaane malaaka yu bon yi ak sunuy bàkkaar ñoo indi metit ci àddina mbind mu sell mi nee na ci njëlbeen gi saar fukk ak ñaar aaya benn ba aaya ñett am bés aji sax ji ne abraham jógeel sa réew ci say mbokk ak ci sa kër baay te nga ñëw ci réew mi ma lay won dina def ci yow xeet wu yaa di la barkeel te màggal sa tur te dinga nekk buntu barke ku teral ma barkel ko kula la móolu ma alak ko te xeeti àddina yépp dinañu barkeelu ci yow bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yàlla tànn na abraham nettali bi mu ngi aju ci ni yàlla tànnee abraham ay at yu bare jàll nañu gannaaw bi yàlla tasaaree nit ñi doon jéem a tabax taaxu babel ci kaw suuf si ci jamono jooju nit ñu bare topp ñu woon yàlla waaye ñuy jaamu yëf yi yàlla sàkk mala yi jant bi weer wi ak biddéew yi doon seeni yàlla ñu dëddu yàlla mileen leen sàkk amoon na genn góor gu tudd abram mu ngi dëkkoon bërëb bu ñuy wax ur abraham ak baayam ak waa kër ga yépp toxu karan nit ñu bare ci karan ay xërëm lañu doon jaamu abraham gamoon na ne yàlla rekk mooy dëgg gi yàlla dikk abraham ne dina ko barkeel moom te askanam dina yaa yàlla dikk abraham itam ne askanam dina doon réew mu yaa mu tudd kanaan mboolem nit ñi doon dund ci jamono jooju abraham la ci yàlla tànn yàlla daldi digge ne kenn ci askanu abraham dina doon kiy tax ñu barkeel nit ñépp ci àddina yàlla diggoon na ko aadama ak awa nit kooku dina daan seytaane yàlla wax abraham mu jóge réew ma te dem ci beneen bërëb bu mu koy won amoon na juróom-ñaar fukki at ak juróom jabaram saray amoon na juróom benn fukki at ak juróom saray jabaram ak loot doomu magam ak ay jaamam daldi ànd ak moom ñu tukki ay fani fan ba agsi ci réewu kanaan yàlla wax abram ne foofu mooy réew mi mu ko digoon moom ak askanam noonu xiif am ci réew kanaan abraham ak waa këram dem misra ñu toog foofu ba xiif mi jeex ñu dellu ci réewu kanaan abraham ak loot doomu magam amoon nañu alal ju bare ñoom ñaar ñépp amoon nañu jur yu bare ak dag yu bare xajatuñu woon ca bërëb ba abraham ne loot tànnal suuf si nga bëgg sa ndeyjoor walla sa càmmoñ boo demee ndeyjoor ma dem càmmoñ noonu loot jël xuru dexu yurdan daldi sanc ci dëkku sodom ganaaw gi ay nit song dëkku sodom ñu jàpp loot ak waa këram nangu alalam abraham ak i gaayam dàqi leen ñu nanguwaat lépp la ñoo ñu lëloon boole ci ñu jotaat loot ak waa këram bi abram di dellusi si melkisedek buuru salem di sëriñu yàlla bi gën a mag gatandu mu barkeel abram abram jox melkisedek benn ci fukk yu nekk ci alalam jëpp gannaaw gi yàlla ni abram dinaa la may réewu kanan sa askan dina yaa ni biddeewu asamaan ci xeet woowu la ki ñu déggee di wàcce yàlla wax abram itam ne benn bés ay satam dinañu dem meneen réew te dinañ fa doon ay jaam ñeenti téeméer at waaye yàlla dina leen yewwi ci buumu jaam delloo leen kanaan booba abram ak sara yi amuñu woon doom ba tey tawret nee na abram gëmoon na lu yàlla dige loolu taxoon na yàlla jàppee ko ni ku fii la sunu nettali bi yem am na ay laaj benn kan la ñi ëpp ci nit ñi doon jaamu ñu ngi doon jaamu tey màggal yëfi yàlla sàkk doon nañu jaamu ay xërëm ñaar lan la yàlla wax abraham mu def ko dafa ko wax mu bàyyi réewam te dem ci beneen bërëb bu mu koy won ñett lan la yàlla dikk abraham yàlla dig na abraham suuf dig na ko askan wu yaa ni ki biddiw asamaan si ak ab sët buy doon barke nit ñépp ci àddina ñeent ndax yàlla mënoon na may abraham réew waa kanan waaw ndax yàlla moom lépp juróom kan mooy sëtu abraham bi yàlla dige mooy ki yàlla dig aadama ak awa mu nekk musalkat bi kii daan seytaane ngir fasaat kóllëre diggante yàlla ak nit ñi juróom benn lan la abraham def bi ko yàlla digee loolu dafa gëm yàlla daldi jóge réewam jëm fi ko yàlla yóbbu juróom ñaar lu tax yàlla barkeel abraham abraham gëm na yàlla te déggal na ko juróom ñett lan la abraham def bi mu dajee ak melkisedek sëriñu yàlla bu mag bi jox na ko ci alalam jëpp fukk yu nekk benn juróom-ñeent lan la yàlla dikk abraham ci mbirum ay sëtam ñu bare ni biddiwu asamaan si dinañu dem ci meneen réew te doon fa jaam ñeenti téeméeri at te yàlla dina leen delloo ci réewu kanan fukk lan la abraham def ba nekk nitu yàlla dafa gëmoon ne li yàlla wax dëgg la te yàlla ne abraham ku jub ci kanamam léegi abraham yàlla boole na ko ci boppam yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka la melukaani yàlla yooyu feeñe ci nettali bi yàlla lu mu digge def ko yàlla li mu dig aadama ak awa ci lu jëm ci seen benn sët dig na ko abraham itam gépp mbaax ci yàlla la jóge yàlla tànn na abraham te barkeel na ko yàlla dig na abraham dara yàlla dafa jub abraham gëmoon na yàlla te yàlla jàppe ko ni nit ku jub yàlla xam na lépp yàlla xamoon na ne askanu abraham dina dem misra te dinañu fa toog ñeenti téeméeri at beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla fase kóllëre ak Ibrahima.